ji moo bind livre bi dëppee ko Serigne Cheikh Anta Mbacké grand militant de la fois et du travail di maam Cheikh Anta Mbacké nekkoon royuwaay ci jàmm yàlla ak liggéey mu ngi wuyoo ci turu Serigne Amidoune Mbacké ibnu Serigne siidi Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Amidoune livre bi nekk livre bu am solo lool ñu xayma ko ci 180 pages di nettali ci tënk dund ak liggéeyu maam Cheikh Anta Mbacke ak liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci lislaam ak liggéeykat bi mu doonoon taxawoon ak Serigne Touba Serigne Amidou Mbacke di xamle ne ndaw ñi dañoo wax di bind royee ko ci Cheikhul Khadim. Euh, livre bi dama ko bind ci cadre euh, vulgarisé ak préserver patrimoine bi nga xam ne moom lañu Serigne Touba bàyyil mooy xam-xam. ndax Sëriñ Tuubaa jihaatam da ko orienté jëmale ko ci xam-xam ak ci ak ci ragal yàlla euh, yëmut rek ci ci ci théoriser ko yëmut rek ci ci ci ci ci ci ci pratique ko waaye da cee yar ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom la ñoom la àndaloon ba noppi wane ci lu bare bëri ci am bindam ndax koo xam ne dañuy estimer li nga bind ci 7 tonnes 500 defe naa ne kooku jëmbal nga xam-xam euh, moo tax nag ñun en tant que euh, ñoo xam ne dañuy tudd di tudd Sëriñ Tuubaa dañoo jàpp ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa gi gën a gaaw daal wala mu anam bi gën a gaaw ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy liggéeyal ko ci xam-xam euh, moo tax ma xalaat ci bind waaye bind ci lan bind ci ñaari aspect yi nga xam ne jàpp naa ne bokk na ci aspect yi gën a ëpp solo ci projet de société Cheikh Ahmadou Bamba mooy liggéey ak jaamu yàlla d'ailleurs bokk na ci aspect yi gën a fondamental ci l'islam ndax suñu borom dañoo wàcc ci suuf ngir ñu liggéey waaye waaye ngir ñu jaamu yàlla loolu tax Sëriñ Tuubaa nekkoon ci yaroon ci ñi nga xam ne ñoom la àndaloon waaye kii ñu jàpp ne moo gën a incarné ñaari ñaari aspect yooyu mooy maam Cheikh Anta moo tax ñu choisir euh, bind ci moom waaye jël comme sous-thème grand militant de la foi et du et du travail ndax maam Cheikh Anta Sëriñ euh, mën naa ne moo ko moo ko tàggat moo ko defal lépp responsabiliser ko jox ko ab dëkk ci bi muy am fukki at ak juróom-ñett dëkk boobu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa fonkoon lool ba saa su ne da ko doon cité ci am mbindam muy Daaru Salaam ba bi demee ci géej gi sax doon ñaan suñu borom delloo ko Daaru Salaam maam Cheikh Anta am conscience ci responsabilité bi nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa euh, dénkoon euh, mu assumé ko yëmut rek ci assumé assumé ko waaye daf ci jàngale lu bëree bëri ndax jóge na Daaru Salaam dem sanc yeneen euh, dëkk yu bëree bëri fu ci mel ne Gaawaan fu ci mel ne Càqami fu ci mel ne piir fenn fu ne mu dem sanc fa wala mu am fa kër dem ba kër yi amoon ci Sénégal yëpp boo ko doon xayma dina mat juróom fukki kër ak ak juróom mu nekkoon koo xam ne ci famille Maram la bokkoon ndax famille Maram ku xam xam ne ay nit yi daara lañ maanaam ay jàngalekati alxuraan lañ ay nit yi diina lañ euh, maam Cheikh dafa ñëw conserver tradition familiale bi nga xam ne moom la fekk. taxawaayu maam Cheikh Anta Mbacke ci réew mi dafa mate woon moo xam ci diine ji la ci wàllum social muy dimbalante ak ci koom-koom. waaye ne ab sëriñ rôle bi nga xam ne moom la am ci société bi yëmut ci jàngale ak jàng waaye ab sëriñ dafa war a participer ci développement réew mi moo tax fu ne ci Sénégal mu dem am fa kër mboolem xeetu. anam boo xam ne jàpp na ne bu fa investir dina ko jural am koom mu investir te waaye lépp lu mu doon def da ko doon def ci anam bu anam bu légal da ci doon euh, bàyyi xel suñu borom mi nga xam ne moom moo ko moom moo ko bind. tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi maam Cheikh Anta mi nekkoon na koo xam ne ku amoon ak ñoom ay relation yu rafet la. mel na Tiwaawoon gis nañ euh, bi fi suñ Tuubaa bi fi El Hadj Malick Sy jógee en 1922 maam Cheikh Anta la suñ Tuubaa délégué woon ngir mu dem. teewal ko Tiwaawan bi ñu demee gis nañ taxawaay ba mu fa am ca la mu fa apporté ci ay ngëneel yoo xam ne da def ci turu yoonu murit moo tax sabab bi biñ ko exilé Sëñ Babacar Si bokk na ci taxawaay yu rafet yoo xam ne amoon na ko ci bind ay lettre ak ay correspondance ngir tubaab yi innocenté maam Cheikh demoon na aj Màkka tamit ajale suñ Tuubaa en 1928 juste un an après le rappel adieu de Cheikh Ahmadou Bamba boroom daaru salaam ak gaawaan na ñu koy faral di woowee nekkoon ku taqoo lool ak Serigne Touba sëriñ Amidou Mbacke di leeral ci livre bi exil bi nga xam ne defoon nañ ko maam Cheikh Anta Mbacke génne ko ci réew mi yóbbu ko ci réew Mali ca dëkk bañ naan Ségou. ndax keroog ba maam sant di fekk li suñ Tuubaa Gabon ci la ko suñ Tuubaa xamaloon ne ko natt bi yow yaa koy yow yaa koy moo tax bi jël nañ ko yóbbu nañ ko Mali précisément Ségou lu mat ñeent at yoo xam ne nekk na fa ginnaaw bi la la ñibbi la ñibbisi mu amoon ay relation ku ci mel ne Cheikh Anta Diop jot naa ko souligner ci ci ci ci téere bi. Euh, ak taxawaay bi nga xam ne maam Cheikh Anta amoon na ko ci euh, encadré Cheikh Anta Diop formé ko waaye dugal ko daara ba tey jii Cheikh Anta Diop bokk ci ñi ëpp xam-xam ci du ma wax Sénégal rek wala Afrique waaye adduna bi yëpp. cérémonie de présentation ak d'éducation livre bi nga xam ne Serigne Amidoune Mbacke bind na ko ci maam Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne maamam la ay kilifay diine kilifay politique kilifay aada ay professeur ay gëstukat mbokk xarit ak wëllëre ñu bëri teewoon nañ jotaay bi ña fa jël kàddu rafetluwaat bu baax a baax livre bi nga xam ne Serigne Amidoune Mbacke bind na ko waaye rafetlu taxawaayub maam Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne royuwaay la. nit la woon koo waaye doon participer itam ci jamono bu ko laajee mu jàppal tànk ki nga xam ne dafay yëngu di politique te taxawaayam gën a méngoo ak taxawaayu askan wi mu jàppal tànk kooku ndax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yoonu murid bi bi mu ko sosee ñetti ponk la ko wutal mu al ilmu naafi al amalu saalih ak al adabul mardi bi ci jiitu mooy xam-xam kon lii lépp dafa dugg ci ponk bi jiitu ci biir yoonu murid te mooy xam-xam ñu defee ko it ci kër maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta rek ci sëriñ bi di taalibe ci moom suñu delloo ci lettre yi ko sëriñ bi bindoon bi mu nekk ci géej gi boobu mu tënkee wa maa as'alukum alayhi bi mu agsee ci jiim gi bëy bi mu ko ci wax mooy jamaalukum ilmun wa sahyun wa adab falazimuha yunfa ankumul wadab ne yéen seen identité liñ leen di nawee ñett yi rek la xam-xam jëfe xam-xam ak ay teggi ñu gërëm muy ñetti ponk yi nga xam ne moom lañ sosee yoon murit xam-xam bu am njëriñ mooy almun naafi al amalu saalix mooy jëfee xam-xam al adabul mardi mooy teggin yi ñu gërëm kon lii suñ xaamidun def di lu am solo ndax xam-xam mooy yoonu murit di ko dalee ci njabootuk sëriñ Moodu Maamun ba ci njabootuk Góor di leen dokkeel bu baax tey ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu mottali sa yéene te musal jàmm doog ndax Mbàkke yàlla dafa def nga nekk ab sac nekk fier booy informé da choisir yow yaay tànn li nga xamante ni jàpp nga ne soo ko génnee mu amal nit ñi njëriñ liggéey bi nag bi nga xamante ni moom la def ci maam Cheikh Anta nekk liggéey bu am solo boo xamante ni fii mu feeñee sax ci Sénégal dafa tax solo si gën a gën a tee mu gën amati solo ndax euh, dañoo tollu ñun ñëpp li ñuy wax ci croisée des chemins mooy foo xamante ni bu ñu fa tollee dañuy am yitte réinventé wu am yitte am lu bari loo xamante ni dañ koy yeesalaat yeesal bi nag daf ciy bokk ci ñu mettre la lumière ñu wane li nga xamante ni moom moo tax euh, moom moo ñuy ressembler ba pare di ñu rassembler ni ma koy waxee jamono bu nekk maam Cheikh Anta nag dafa bokk ci ñooñu nga xamante ni tey ci li ñuy construire jàpp ne moom moo war a sous-tendre développement économique et social yépp moom mooy un capital humain de qualité. di féliciter di gërëm si Amadou mi mbind mbind mi mi wax ci borom dërëm ma ngërëm mi ñëw tey yee Sénégal woon leen. kan mooy Cheikh Anta kan mooy Sidi Maxtaar Mbacké loolu dafa nekk lu am solo ndax dañ nekk ci àddina boo xam ne dafa jaxasoo ay façon yu ne ñoo am ay bokk arab ay état islamique ay ansardine ay façon bu ne ci lu ñu am bokk ak dara yemul ak leneen ñoo am li gën ñoo am li mën mu yooni murit ak Cheikh Ahmad Bamba ak ki xam ni bras droit bu wóor la woon nekk premier talibé ñëkk a jébbalu ñëpp xam nañ ko mu Cheikh Anta Mbacké capacité intellectuelle bi mu am ba nga xam ne dafa jël sëñ bi euh, rënk ko ci 180 pages yoo xam ne tey soo ko defoon caractère normal 100 pages lay doon loolu c'est pas donné te xam naa ne même ndax jàngalekat laa damay corriger biñ ma annoncé livre bi ma ne ah man de euh, li ma ci gën a yàkkamti mooy sëñ bi fan la koy jaar ndax xam nga suñ ne la nit multidimensionnel fu ne mën nga faa dugg ma ne non kon xam naa sët bi daal da daa bëgg rek wax ñu maam ci dimension spirituelle am donc ñaari fan livre bi mu ñëwee fi ñu ma ko joxee wala razim gardien bi dafa ma ko joxe moo ubbi table des matières parce que dama bëggoon a xool fan la bëgg a jaar sëñ bi ndax pàcc pàcc yi mais bi ma gisee table matière bi ma ne ah li yaatu na de mais bi ma duggee ci laa gis nag dànk yi muy dànk muy dànk yoo xam ne nii ci fulla ci fayda booluwu ci daray folklore. waaw ah, mën mun na nañu actualiser avec euh, les actuaires parce que dañu naan le franc d'or bi ñu amoon dans les années 1920 ba 1935 moom la ñu woowee ngurt maa ngi ko woowee ngurt. benn ngurdu bu ci nekk mënoon naa jënd fukki kilo ceeb ak juróom-ñaar fukki kilo ceeb ak juróom-ñaar euh, boo xoolee euh, xam sax quantité d'argent bi mu joxoon euh, Ngalandou Diouf ba mu koy jàppale te li mu doon jàppale Ngalandou juuf li Ngalandou juuf xeexam ak Blaise li mu bëggoon rek jàppale diine yamale citoyen yëpp taxoon na mu joxoon ko cent soixante quinze mille francs d'or cent soixante quinze mille francs d'or dem doon doon na toll boo ko doon xayma tey ci huit cent soixante quinze mille francs huit cent soixante quinze millions mu leer na ni loolu xaalis bu takku la boo xoolee ba yi matul un en mille neuf cent vingt euh, mille tonnes de riz boo ko bëggee xam multiplier les 17 millions tey par 27 millions nga xam ni li mu doon li mu joxe woon ci tonnes de riz ëpp ëppoon na donc ay 450 mille tonnes euh, ndaw nga wóolu ko jox ko dëkk boole ko ak ay nit ñaar fukki at mu nekk koo xamante ni amaloon na njëriñ réew mi amaloon na njëriñ tarixam tamit. objectif Serigne Amidou Mbacke ci livre bi bokk na ci xamle liggéeyub maam Cheikh Anta Mbacke ci mbind ndax mbind moo nekk loo xam ne day des mu nekk lool mën nañu cee jànge topp ndigal bëgg sa réew nangoo liggéey lépp jaamu yàlla lal ko. C'est un modèle qui servira de base pour comprendre comment une vie doit être totalement et entièrement mise au service du travail. C'est ce qui explique d'ailleurs la de Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane